asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, mbokk Touba ci kanam ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di ñëw ak yéen ci eh, bilan mensuel bu mois de mars eh, tukkee ci sous commission de gestion des fonds banqaasoo ci commission finance ñu indil leen li nga xam ne nii moom la waa Touba ci kanam dajale ci njaayam tike yi ak jaayante yi ak mbooleem luy dugal xaalis ci keesi Touba ci kanam ñu njëkkee ko ci Touba versement mois de mars def nañ ci soixante douze millions cinq cent trente sept mille cinq cent francs moom la waa Touba dajale suñ amee montant boobu nag danañ ci lim ñenn ci jàmbaar yi euh, tàmbalee ko ci soxna Bintu Sarr moom verse na ci dix millions cinquante mille francs soxna Mbaye ak na ci sept millions quatre vingt dix neuf mille soxna Bintu Mbacke verse na ci cinq millions Baye Serigne Leye verse na ci million millions cinq cent soxna Mame Fatim Mbaye verse na ci deux millions sept cent quatre vingt dix mille soxna Njaxat Mbacke verse na ci deux millions deux cent quarante moo Modou mbay verse na ci deux millions deux cent vingt six mille francs fédération Jannatu soxna Mame Marème Mbacke million cinq cent quatre vingt dix huit mille francs soxna Fatia Mbacke un million trois cent mille francs camion LED numéro un bi un million six cent quarante mille francs soxna Assou Mbacke Sam un cent vingt sept mille francs fédération Ndindi soxna Abim Mbacke Baye Fallou Sow ñi dem Mbacke fekk fa soxna Dior Gaye ak soxna Ñaaw Mbacke ñoom dajale nañ ci mois de mars sept cent soixante deux mille francs Wave soixante-dix-huit ak plateforme douze millions huit cent quarante-quatre mille sept cent quinze francs Orange Money mois de mars un million sept cent cinquante et un mille cent trente application Touba ca kanam euh, virement yi ñu def ci compte bi jóge ci paiement carte yi def na cent quatre mille neuf cent trente et un francs Dakar Ndaw quatre millions sept cent un mille francs Kayar Soxna Asuwaaj mille francs Thiès Serigne Mbaye sal un million trois cent soixante trois mille francs département Dagana Serigne Aliou ñung deux cent dix sept mille francs Diourbel Soxna Ndey Ndiaye Manel Soxna Daba Mbacke un million cinq cent treize mille francs Bambey Serigne Abdou Fall soixante quinze mille francs Daïra Babul Ayadi Agnam cent cinq mille francs Saint-Louis Serigne Rijal Seck Soxna Rama Fall sept cent vingt mille francs Kaolack Serigne Moustapha Touré million quatre cent cinquante mille francs Kébémer Serigne Gora Sylla un million cent vingt six mille francs Kédougou Serigne Modou cent soixante dix mille francs Louga Serigne Moustapha Bassirou Mbuub deux millions deux cent trente cinq mille cent francs Mbour Serigne Mor Soran un million cent soixante cinq Tawa Ndiaye Soxna Nogay Kébé cent mille francs Fouta Wouré Alpha Serigne Ousmane Diouf cinq mille francs Bakkan Laman Soxna Njaba Ndiaye cinquante mille francs Moudéri Serigne Bassirou Ndiaye cinquante mille francs Ndiawara Serigne Cheikh Anne cinquante mille francs versement anonyme un million six cent vingt deux mille huit cent soixante sept francs Darou Salaam Diouf Serigne Youssou Thioune cent mille francs Lambaye Serigne Yankoba Faye cinquante sept mille francs Kafountine Serigne Jëmmu Cissé cinquante huit mille francs Xombol Serigne Mbaye fay sept cent mille francs suñu boolee li dugg ci zone nationale bi mu ngi toll ci cent six millions deux cent quatre vingt treize cent cinquante deux francs cent six millions deux cent quatre mille deux cent cinquante deux francs ñi dem ci zone Asie jiit euh, njëkkee ko ci Taïwan ab jaayante bu ñu def mu toll ci quatre vingt mille francs retour espèce muy loo xam ne dafa xaalis dafa génnoon ñu fere ci mu des ñu dugalaat ko mu toll ci cent dix mille francs location machine mooy machine yi mbokk taalibe yi jël di ci joxe barkeelu def nañ joxe nañ ci quatre cent mille francs zone Amérique ñi njëkkee ko États-Unis sëñ Sonia bu sekk joxe na trois millions deux cent trente mille francs total zone Amérique dañuy am trois millions deux cent trente mille francs zone Europe ñi tàmbalee ko ci Allemagne Serigne Abdou Salam Faye un million soixante onze mille cent soixante dix huit francs Italie coordination ba deux millions quatre cent quarante huit mille neuf cent dix francs Suisse Serigne Ndiaga Aw mille francs Espagne Serigne Malick Dieng six cent mille trois cent soixante dix francs total zone Europe ci mois de mars bi quatre millions deux cent trente neuf mille quatre cent cinquante huit francs zone Afrique ñu tàmbalee ko Gabon ak Serigne Khassim Sarr cent soixante quatorze mille francs Côte d'Ivoire Serigne Mor Fassa cent quarante mille francs Afrique du Sud Serigne Mor Dieng francs kon Afrique li ñu dajale ci mois de mars bi mi ngi toll ci un million trente six mille boolee li dugg ci Afrique Amérique ak Asie ak zone nationale bi lépp ak li dugg ci jaayante toll na ci cent quinze million quatre cent cinquante trois mille sept cent dix francs cent quinze millions quatre cent cinquante trois mille sept cent dix francs kon mbokk yi ginnaaw bi ñu leen indilee li Touba ci kanam dajale te mois de mars bi ñu indil leen ni mu ko jëfandikoo ci biir liggéey bi ñu tàmbalee ko santé allié poste de santé bu fa Touba ci kanam di tabax ñu toll ci wàllu main d'œuvre plomberie def nañ ci mois de mars un million sept cent vingt six mille quatre cent francs clôture kër kàbb mooy mur de clôture terrain yi fa Touba ci kanam am duñ ko miiree def nañ ci mois de mars un million deux cent quarante six mille huit cent trente six francs ODY bu ñu ko tuddee rek danañ tudd li nga xam ne nii moo nekk ci euh, defar yoon yi toj-toj yi am ci yoon yi jëndoon nañ basalte boo xam ne nii ci enrobé la jëmoon ak ay giri avaloir yi ñoon di ci kër Sëñ Touba gi loolu def nañ ci sept millions six cent huit mille sept cent cinquante francs ñu dem ci commission réalisation caisse d'urgence gi nga xam ne dañ koy faral di génne ngir euh, dépense yu yàkkamti yi génn na ci mois de mars bi dix millions francs euh, santé Madiana Ciss moom it di poste santé bu Touba ci kanam di liggéey foofu gros œuvre bi pare na ñu toll ci seconde œuvre yi décaissé nañ six cent cinquante deux mille trois cent vingt cinq francs commission environnement nettoiement xam ngeen ne ajuma ci jot commission environnement mi ngi jël mbeddi Touba yi di mbuub ak li nga xam ne defoon nañ ko ci jox mbootaay yi ay jumtukaay yi bale ci mois de mars bi commission environnement décaissé nañ trois millions trois cent cinquante et un mille sept cent cinquante francs communication mooy ñi yaatal liggéey bi euh, ci mois de mars bi décaissé woon nañ lu jëm ci seen communication ramadan ak ñenn organes yu ñu doon fay boo boo boolee mi ngi nekk ci dix huit millions trois cent soixante sept mille francs commission scientifique mooy ñi nga xam ne ñooy yeesalaat daara yi xam ne jël nañ lu ma juróom-ñaar fukki daara ci at mi di leen yeesalaat ci diggante mbaar ak duus ak ay e, jumtukaay yu jëm ci wàllu njàng mi ak formation yi ñu leen di defal dégeese nañ deux millions quatre cent trente et un mille francs commission logistique ci taxawu gasoil yeeg entretien oto yi mois de mars bi dégeese nañ ci vingt et million millions huit cent quatre-vingt-dix cent onze francs Daaru Rahman ñu ko tuddee tudd tool ba nga xam ne nii mur de clôture la fa Touba ci kanam doon def ak it sampaale tàmbali liggéeyu tool ba taxawaay waa environnement waaye se nañ ci mois de mars un million deux cent dix neuf mille francs commission massification dépense yi def ci café Touba yi ñuy def ci bis bu set ci dëkk bi génnee nañ ci mois de mars bi deux cent mille francs li jëm ci charges fixes yi nga xam ne mooy barkeelu yi Touba di génne di ko jox mbokk yi jàpp ci liggéey bi euh, décaissé nañ ci mois de mars bi quatorze millions huit cent soixante cinq mille francs commission hydraulique bu ko waxee mooy ñu yor ndox mi yoraale ndoxum naan mi ak ndoxum taw mi ñoo ñëwee nag décaissé nañ ci mois de mars bi cinq millions cinq cent francs social ramadan bu ñu ko waxee mooy li Touba ci kanam di génne di ko jàppalee commission sociale ginnaaw bu wutee euh, xaalis bu mu jox euh, ñi nga xam ne ñooy way ndimbaliku yi ci koor gi Touba ci kanamit da ko ciy jox lu tolloog cinquante pour cent décaissé nañ ci mois de mars bi trente huit millions huit cent quatre vingt mille francs su commission leeral moo jëm ci commission bi nga xam ne ñooy monter làmp yi xam ne fan yi amoon na juróomi junni làmp yu ñëw ñu tàmbali di ko monter jumtukaay yañ koy yi ñuy jëfandikoo nag ngir monter ko décaissé nañ sept millions trois cent cinquante neuf mille francs euh, commission administrative fere yi nga xam ne dañ koy def mu jëm ci jumtukaay yi jëm ci bureau yi ñuy liggéeyee euh, def nañ ci trois cent quarante mille am nañ frais bancaire soixante mille deux cent quinze euh, loolu nag bu ko ci boolee lépp li nga xam ne génn ci kees Touba ci kanam ci mois de mars bi day tolloog cent trente six million quatre cent quatre vingt huit mille huit cent onze francs cent trente quatre cent quatre-vingt-huit mille huit cent onze ñu fàttali ne euh, ci mois de mars bi dajale woon nañ cent quinze millions quatre cent cinquante-trois mille sept cent dix waaye solde bi nga xam ne nii danañ ko am ci fin mars di le premier avril dañuy daal di am ci kees yi kon trois cent soixante-neuf million cent cinquante-trois mille cent cinquante-deux francs trois cent cent cinquante-trois mille deux cent cinquante-deux francs ñu ngi sant ñëpp rek waa Touba ci kanam yëpp di leen gën a ñaax ci jàpp ci liggéey bi ak jàpp ci barkeelu yi